xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke ni mu koy defee at mu jot door na ak ngan ci dëkk bi di daaru salaam tibb jamonoy fukki waxtu ak ñaar yu tegal fanweeri simili ci la sëriñ bi tàbbee ci dëkk bi lee mag ndaw góor ak jigéen di askan wi fi fare fasantikoo ci ay daayira ñoo ko daal di teeru te dagal ko diirub ngan gi nag ñi nga xam ne ñooy saytu liggéey boobu di comité d'organisation bi gën nañoo dikkaat ci liggéey bi nan lañ ko fas yéene saytoo. pare na dëkk bi yëpp mobilisé wu nañ boo demoon ci wàññi da nga fekk dëkk bi yëpp dajee fa di nekk ca bernde ya lépp jàppandi na te siyaare yit alhamdulillah ndax sëriñ bi jagleel na leen loo xam ne lu lu am solo la. ne kaaraange itam am nañ ci yaakaar bu baax am na am na fi bu wér-wér ndax ñoom teel nañoo def jël seen i matukaay ñëw te incha allah noonu lañ fi nekkee ba ànd ak sëñ bi dem Tuubaa Mbul incha allah. mbokki taalibe yi féete fii fasantikoo ci ay daayira ñoom itam seen taxawaay ci bis bi du leen lu dul teeru gan ñi teral leen taxawu leen. ba keroog sëriñ bi di fi bàyyeekoo. bu buñ nee sëñ baa ngi ñëw waaj ñu ngi koy waajal ba ba muy dem amatuñu soxla fenn saa ñu xëyee fajar la ñëw bala ñu fay jógee nit ñi di min wi jot nga ñëpp fat nañu doog a ca daara jëm mi taxawaay daayira ci jiirum ngan gi nag mooy fas yéene takk laxasaayu taxawaa taxaw liggéey bi yaatal dalal gan ñi yaatal leen ca taxaw ci wàllu waañ wi nga xamante ni bi moom la ñu sëñ bi jox fonk ak jox cër gi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha jox na ko dëkk bii di Daaru Salaam wax na nag buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ne bàyyeekoo na ci kenn ci ñi ànd ak ñoom ci ngan gi nee na kat diir bu mu fiy nekk ñoom rek la ko jagleel. naam tiib ak tund tiib rek la fi soxla bu demee mbul mbul ak tund mbul rek la fa soxla déere yeeg ñi yëpp nañ ko xaar Tuuba ba mu ñëw te loolu it mooy def leen a jox rek eh, ab cër ndax cër bi maanaam mooy ñoom it ginnaaw at mu ne benn yoon la ñu gis sëñ bi. wax dëgg yàlla fan yooyu muy am ci ñoom ñu may ko nag mu yaatu ci ñoom mën a gisee ak ñoom mën a wax ak ñoom. lii nag mën nañu ne mooy ndorteelu nganuk Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké gi mu baaxoo def at mu jot diggante Daaru Salaam Typ ak Mbul mu door ko nag ci alxemes ji ñetti fan ci weeru novembre 2022 fas ko yéene wéyal ba fukki fan ak ñett. ci weeru novembre diir boobu nag ñi nga xam ne ñoo di daara isbu tarxiya fas na nu yéene ànd ak moom niñ koy defee di ko wéttali ci njàngum xasaayit ba keroog muy dellu siwaat ci dëkkam bu tedd bi di Touba.